li si yéene kaay yi fa mel ne wax di noppeegul de ndax la quotidien mi ngi ñuy xamal ne kii di Hadjibou Soumaré l'état bu Sénégal fa ko tontu ba noppi dal di ko tëkku de boo moytuwul gars yi fa ñu koy porte plainte yóbbu ko ci yoon ndax fa leen waxal loo xam ne dara mu ca GP yéene kaay ne fa attaqué président Macky la waaye dootu ko defati Karim Fofana ne bu Soumaré li muy wax waxu ku daanu ci seret la critique yéene kaay di ko critiqué ak Habib Niang Isaaxa Diop feelu ko naan ko Hadjibou Soumaré de fa deewoon ci politique bëgg a dekkiwaat tax muy ak sosal président Macky Sall naan fa jox kii di Marine Le Pen koppar gu takku waaye ñu ngi naan ko président Macky Sall amul jot pour tontu la ndax ku am kuddu doo lakk enquête yéene naa na bu Soumaré kat dikkaat na ak doole ndax li mu wax jur na coow lu rëy ci réew mi l'évidence yéene kay naa leen yéen tamit seen njiit gii di président Macky Sall numéro 7 fa ko topp rek ñu ngi wax waxu 7 ak 7 milliards yu topp yu ñu sulli nii direct news naan fay laajte ndax Hadjibou Soumaré foo wax gouvernement bi nu dëgg waaye Bougane Gueye mi nga xam ne foo wax ne 98 milliards yi yi nga xam ne fa ñu ko leb ci tubaab ya te Mansour Faye xam ne fu xaalis ba dugg ministère des finance bu yor xaalisu réew mi ne gisuñu xaalis kon wax ju rëy ju Bougane Gueye Dany wax ba tey gouvernement bi tontuwul ci Bougane Gueye Dany ci yéen kaay naan Mansour Faye de xam ne fu xaalis ba dugg te député yi fa ñu war a sàkk ngir ñu leeral xaalis bi ndax sénégalais yi ñoo ko moom ndax ñoo koy fay de le mandat naan Bougane Gueye mu ngi naan doon goro Macky Sall tax na say service te nar a leb xaalis bu tollook téeméeri milliards yu manqué ñaar te njiit yor génnul te joxul la ndigal Bougane Gueye ba tey mu ngay naan président Macky Sall fa violer règle yoon jëm ci wàllu démocratie ak yemale te ma fàttali ko ay kàddoom ba mu bëggee bopp réew mi ak léegi dee wuute na tut bin yéene kay naan fa ñu bëgg ñu leeral milliards yi nga xam ne Bougane Gueye Dany wax na ko ak juróom-ñaari milliards yi nga xam ne Hadjibou Soumaré ne fa ko jox kii di Marie Le Pen ak rapport yi nga xam ne fa ñu képp koppori askan wi te kenn si turu UMS mi ngi ñaaw lu ñuy attaqué ka sànjaafu attekat yi te nañu xam ne attekat yi seen liggéey la ñuy def nekkul muy tere adversaire yi ci wàllu politique te bu ñu fàtte ne ñun bariwuñ si 516 rek la ñu toll ci 17 millions si sénégalais kaddu yaa nga ca journal bi de Le Témoin ubbi L'Observateur mi ngi naan président Macky Sall des opposants yi dañu ko lalal diggu sërëx ngir jëlee ko fi fa ñu bëgg a doole hand ngir tëbal ko ci élection présidentielle yu ñu dëlmal 2024 waaye PDS fa mel ni naru caa bokk PDS seen dara leeru ci ay pexe la ñu nekk ak i naxante Mimi Touré naan maa bëgg ngeen noppalu ndax wax naa leen ne PDS fay teg deal ak président Macky Sall ci wàllu troisième mandat tir bi yéene kaay ne ngir wax ji leer PDS ak APR fa ñu nar a ànd takk sëy bi te boo moytuwul 138 milliards yi ñu tuumaloon Karim Wade dinañ ko ci def ci biir sëy bi waaye de jigéen ñi PDS ña ngay tontu Mimi Touré naan ko yow doo dara demal yoor yor xëyee naan Serigne Cheikh Thioro bu Pastef ak waa Pastef dajee nañu ak présidente assemblée nationale bu Québec dajee nañu ngir waxtaanee lu président Macky Sall ak i nguuram ak Ousmane Sonko di def ci bopp réew mi te dara du ci yoon lépp boole nañ ko ak tubaab ya keneen ku ñaawlu doxali ni président Macky Sall di Serigne Modou Gueye jiite parti bi di IP ci 24 heures yéen kaay naan waxu troisième mandat fa ñu koy tere ñi nga xam ne ñoo ngi dooleel président Macky Sall seen intérêt kese moo leen ñor kenn gëmu ko ci yéen kaay bi naan jàngalekat yi fa ñu nekk ci élection ngir tabbu ñu leen di teewal ñu ngi toll ci juróom fukki syndicat ñoo bokk ci boobalee yéenekaay yi du ñu xamal ne fa am ay sénégalais yuy sàkku ci askan wi ngir buñ jëfandikoo lii di Zadida moo xam la moo xam la ak lum ci bën a doon ndax kat Zadida réew mu Tunisie ñoo ko moom te réew moomee lu ñuy def sénégalais yi ci wàllu racisme lañ ko teg waaye de njiital Sénégal de fa génn weddi tumay ba tëdd ci suuf si bi yéenekaay naan tey ma xamal lu tax ñu bari di jëfandikoo lii di cigarette mooy stress ak i problème yi bari turbine yéenekaay naan kay ma xamal la lu tax ñu bari di tox cigarette mooy stress ak i problème yu bari ak seeni jabar ba ci mbetteel benn waay naan moom de gër guerrier moo ko ci dugal kii naan faa doon xeex xeex bu métti ba ma ca noppee ci laa dugg ci soxam cigarette te léegi mënuma koo bàyyi ak lu ci mënta am daal yal na ñu yàlla defal jàmm daal